bismillahi rahmani rahim Ibrahima Badouwa Dramé tey ban werd nga ñu indil astaghfirullah téeméer astaghfirullah téeméer allahu jabaaru ñetti téeméer juróom ñaari fukk ak ñeent allahu boo koy wirde astaghfirullah téeméer allahu jabaaru ñeenti jabaaru juróom-ñaar fukk jabaaru ñeenti yoon allahu jabaaru juróom-ñaar jabaaru ñetti téeméer waaw ba tey ndax euh, mën nga nu ko wax ci français astaghfirullah cent fois astaghfirullah cent fois allahu jabaaru 374 fois allahu jabbaaru 374 fois allahu jabbaaru 4 fois allahu jabbaaru 7 fois allahu jabbaaru 300 fois waxal ñu ko ci soose astagfirlah keme allahu jabbaaru keme saba tawwarawla aninnaani allahu jabbaaru keme saba tawaraw la ani naani ni la allahu jabaaro ku ña naani allahu jabaaro ku ña tawaraw la allahu jabaaro ku ñaa keme saba allahu jabaaro ku ña naani allahu jabaaro ku ña tawaraw la allahu jabaaro ku ña keme saba général ibrahima baduwa dramé jërëjëf euh, Serigne Ibrahima Badoua Dramé leeral yi am na solo mbokk yi ñoo ko déggandoo di leen jox dig daje incha allah ci beneen numéro.